ma dellu si ci lu Sonko doon wax maanaam euh, alarba bi bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la na wax ban date la ba ko may booba man maa ngi délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale ri par chap délégation Boblé, le man maa ngi en juillet 2014 té audience Boblé, ba muy am mom moko ko je répète mom moko ko laajoon ba am benn fonctionnaire bu mak mo foon té fonctionnaire bobu magistral woon moom moo audience Boblé. waaye nag man duma ma wax waxtaan bi nga xam ni waxtaan nañ ko tout simplement dama mënul comprendre xam nga c'est normal qu'un sénégalais soxla gis président mu fu mu jaar ku ko yombalal loolu normal la lu normal lu koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moo ma jaaxal waaye xam nga dañuy wax ni bu fekkee da nga ni damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm ni ngi maa ngi koy xeex waaye bu guddee ngay jaar ci diggante bunt di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobu boobule moom ci boppam am na benn élément sonor moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir sonor boobu boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekkee loolu nag comme yoon mooy ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ko mën ma génne ko bu nee prip mën ma génne ko bu neexee yàlla donc loolu lay xaar mu def ko donc jox ko presse bi jox ko sénégal yi.